yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fanweereelu njàngale mi ak ñaar malaaka mi feeñu na sakariya nanu bamtu nettali yi weesu benn naka la aadama ak awa fecce seen kóllëre ak yàlla dañu bàkkaar ci kanamu yàlla ndaxte lekk nañu doomu garab gi ñu tere ñaar naka lañu xamee ne doomu aadama bàkkaarkat la ndaxte Adama bàkkaarkat la woon te kon képp ku bokk ci askanam bàkkaarkat nga. ñett lan mooy àtte bàkkaar. kóllëre gu jeex ak yàlla boole ci dee. ñent ci nettali yépp ndax yàlla ànd na ci benn bàkkaaru nit déedéet juróom ndax yàlla àtte na bàkkaari nit ñi waaw juróom benn ndax saraxu waa Israël yi fay na seen bàkkaar saraxe bi ab tayle la woon nit ñi ñu ngi doon xaar saraxe bi amul bàkkaar bi fay bàkkaar ba mu mat sëkk juróom-ñaar lan la yàlla jëkk dig aadama gannaaw gi mu dig ko Ibrahima ba noppi dik ko Daawuda yàlla digoon na leen ab sët buy ñëw ngir musal nit ñi ci àddina mbind mu sell mi nee na ci luk saar benn aaya juróom ba aaya juróom ñett aaya fukk benn ba aaya fukk ñett aaya fukk ak ak aaya ak juróom ñaar ca jamonoy erod mi nekkoon buur ca réewu yawut amoon na sëriñ bu ñu tuddee sakariya te bokk ca mbootaayu sëriñ si askanoo ci abiya jabaram elisabeth askanoo itam ci aarona sakariya ak jabaram ñu jub lañu ca kanamu yàlla di topp ni mu waree ndigal yi ak dogali borom bi yépp waaye amuñu doom ndaxte elisabeth mënul am doom te it fekk ñoom ñaar ñëpp ay màggat lañu benn bés nag sakariya doon def liggéeyu sëriñam ca yàlla ndaxte mbootaayama aye keroog noonu benn malaakam borom bi daldi feeñu sakariya taxaw ca féeteeg ndeyjooru taabal dañuy lakkee cuuraay naka la ko sakariya gis fitam daldi dem mu tiit waaye malaaka ne ko bu ragal dara sakariya ndaxte sa nangu na elisabeth sa dina la jural doom te di nga ko tuddee yaxya dina delloo si niti israel yu bari ci yàlla seen borom mooy jiitu di yégle ñëwu borom bi ànd ak xelmi ak doole ji yàlla iliyaas amoon ngir jubale xoli baay yi ak doom yi ngir delloo ñii déggadi ci màndu teg ñi jub noonu dina waajal mbooloo muy teeru borom bi bu leen fàtte ràññee melokaanu yàlla yi ci nettali bi malaaka feeñu na sakariya nettali bi mu ngi aju ci ni malaaka mi feeñoo sakariya te gannaaw gi mu feeñu maryaama ci linjil la nettali bi nekk am na lu yàgg yàgg yàlla wax na lii jaare ko ci yonent yàlla esayi esayi bind ko am na baat bu xaacu ca manding ma ne xal leen yoonu borom bi jubal leen fi muy jaar yàlla jaari na ci yonent yàlla mala si ne maa ngi nii di yónni sama ndaw dina xàll yoon wi fi sama kanam ñaari yëgle yi ñu ngi wone ne yàlla dina yónni ab yonent mu yëgle ñëw sët bi yàlla dige gannaaw yonent yàlla mala si yàlla toog na ñeenti téeméeri at yu mu yónniwul benn yonent léegi linjiil wax nanu ci mbirum yonent boobu amoon na benn sëriñ bu tudd sakariya jabaram tudd elisabet ñoom ñaar ñëpp ñu jub doon nañu topp yàlla di ko jaamu elisabet mënul woon am doom te mu ngi doon jëm si mag benn bés sakariya doon liggéey ca kër yàlla ga am malaaka feeñu ko sakariya tiit waaye malaaka mi ne ko bu mu tiit ndaxte yàlla nangu na seen ñaan te élisabeth dina am doom xale bi yaxya la war a tudd xale bi dina fees ak xel mu sell mi maanaam xelum yàlla dina nekk ci moom dale ko ba muy nekk ci biiru ndeyam malaaka mi wax itam ne waa israel yu bare dinañu gëm borom bi yàlla ndax yonent boobu yonent boobu dina yëgal nit ñi ñëwu borom bi di set bi yàlla dige sakariya laaj malaaka mi naka laa koy xamee ndaxte man ak sama jabar mag lañu malaaka mi ne ko dootul mën a wax ba keraa xale bi di juddu ndaxte gëmul kàddu malaaka mi ba sakariya noppee liggéeyam ca kër yàlla ga mu génn nit ña xalaat ne dafa am lu ko feeñu ndaxte mënula wax waaye bañ ci tegee tuuti Élisabeth daal di ëmb bi Élisabeth ci juróom benn weer malaaka mi Jibril feeñu ab jànq bu tudd Mariama di mbokkum Élisabeth Jibril wax Mariama ne dina jur doom ji nekk musalkat bi di set bi yàlla dige Jibril ne ku màgg lay nekk te dinañ ko woowee doomu aji kawe ji bi yàlla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 élisabeth jur doom ju góor mbokkam yëpp ak xaritam yëpp bég ndaxte yàlla won na ko yërmande bi xale bi amee juróom-ñetti fan nit ñi ñëw ndaxte xale bi war na jong ni mu doone aada ci waa israel mbokk yi bëgg tuddee xale bi sakariya baayam waaye élisabeth ne leen déedéet yaxya lay tudd ñu ne ko amuloo men mbokk mu tudd yaxya ñu liyaar sakariya ngir laaj ko naka la bugg xale bi tudd sakariya mënul woon wax kon mu jël ab àlluwa bind ci yaxya la tudd nit ñi jaaxle ci saasi xelum yàlla solu sakariya ba fees del mu tàmbali naan cant ñeel na borom bi yàlla israel ndaxte wallu si na mbooloom ba jot leen feeñal nanu musalkat bu am doole bi soxi ko ci askanu daawuda jaamam yow nag doom dinañ lay wooyee yonent aji kawe ji ndaxte di nga jiitu di yégle ñëw borom bi di ko xalal yoon wi di nga xamal mbooloom ni leen borom bi mën a musalee jaare ko ci seen mbaaluk bàkkaar loolu la sakariya wax xale bi mag xelam yaa mu beru ca màndig ma ba bés bi mu tàmbalee waar waa israyil fii la bi yem am na ay laaj benn lu dal sakariya bi mu nekkee ci kër yàlla ga di def liggéeyu sëriñam am malaaka feeñu na ko ñaar lan la malaaka mi wax sakariya nee na ko Elisabeth dina am doom war nañ tuddee xale bi Yaxya dina fees ak xel mu sell mi laata sax juddoom dina doon yonent bu mag bi yëgle mu musalkat bi yàlla dige ñett naka lañu attee Sakariya bi mu gëmul li malaaka mi wax mënatul woon wax ba bi liir bi juddoo ñeent ndax bi yoon la yàlla jëkk a wax ci mbirum juddub yaxya déedéet yonent esaayi ak malasi wax na ci mbirum juddub yaxya yonent bi ñëw ak ci liggéeyam juróom kan mooy Mariama ab jànq la woon di sëti Daawuda doon na ngorowoo ak ku ñu naan Yusufa juróom benn lan la Jibril wax Mariama jibril nee na ko dina am doom te mooy ki yàlla dige juróom-ñaar lu tax mariama laajte loolu naka lay amee ndaxte jànq la woon juróom-ñett lan la ko jibril wax nee na ko xelum yàlla dina ko def mu ëmb juróom-ñeent loolu lan la ñuy won ci mbirum ki yàlla dige wane na ne nit la te yàlla la itam fukk lu xew bi sakariya bindee doomam yaxya lay tudd làmmiñam dellu si waatoon na fukk benn lan la sakariya wax bi ko xel mu sell mi solo yàlla wax na ci gémmiñu sakariya ne fàttewul li mu dig nit ñi yàlla digewaat na ne dina leen musal ci seeni noon wax na leen itam ne du fàtte lépp li mu digg seen maam Ibrahima fukk ak ñaar ban yonent moo wax ci mbirum ab jax bi am doom ju góor Esayi yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla may na Élisabeth aw yiw mu jur doom ju góor donte mag la waa Israël daaw topp yàlla fu ñu toll waaye teewul yàlla bëgg leen te dig leen ne dina leen yónnee ab musalkat yàlla mooy boroom doole yàlla am na doole yi def Élisabeth ak Sakariya am doom donte mag lañu yàlla luuloo na Sakariya yàlla waxloo na Sakariya ay mbir yiy ñëwi xel mu sell mi def Mariama ëmb yàlla lu mu digge def ko yàlla wax na jaarale ko ci gémmiñu sakariya ci mbirum set bi mu digg ibrahima isaaxa ak daawuda beneen yoon dinañ waxtaan ci juddu bi yeesu kirist set bi yàlla dige maanaam isaa